كريم واسع ويفضل màggal bu jotatee na ngeen ko def genn màggal fu rëy ngeen def ko def loola jëlef naa booloo gi waaye gën a xamle sëñ Tuubaa ci réew mi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi sant yàlla bu wér di julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam di santaat bu baax Cheikh Ahmadul Khadim si ndigalu Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. kuréel gii di 18 safar muy kuréel gi nga xamante ne nii moo njaboote mbooleem daara ak mboolem daayira yi nekk fii ci Île-de-France noo leen yëgalati ak a fàttaliwaat bis bi nga xamante ni nii moom la mës dégg Serigne Touba woote ci ndimbal muy màggalu Touba gii. nee nañ ko si santale sunu borom ren toll si deuxième édition bi fii ci Île de France fan lañ koy defee Paris pale des congrès bu Montreuil kañ lay doon dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru octobre si bu huit heures jotee ba nu julli fajar ba noppi noo ngi si woo mbooleem ku bëgg yàlla akub yonantam képp koo xamante ni mbégum Serigne Touba sa mbégte la noo ngi lay woote di la fàttali bis bi tey ñaan nanu si amee woon tawféex daaw si Seex Sidil Muxtaar yàlla na yàlla yokk leeram sunu borom fulalaat ñu tawféex yooyu ci Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér képp ku dégg sunu kàddu yi nag xam ni murit yi nekk Île de France nanu dajaloo woon daaw doon benn say def màggal gi ren fulaat ñu daje boobu doonaat genn say ngir defaat màggalu Serigne Touba yi fii ci Paris kon ñoom ci woo tey ñaan ñëpp am tawféex yi Serigne Touba ci màggal gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala